asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 20 juin 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yi nag tey suñu làmb fa la ñuy xëy yëglikaay bi nag bi mu xëyee tey daal laaj la xëy samp jëmale ci ki nga xam ne moo di rëg ki koy arrêté daal moom la sunu làmb xëy di ko laaj mu mel ni ki nag am na ñoo xam ne moom ñu nga cay joxe seeni xalaat ñoo xam ne day yaakaar nañ ne ay adversaire de taille lañu pour kii nga xam ne nii moo di rëg-rëg jàppal kii di Malick Thiandoum di kër nekk ca i rajo wax na ci kii nga xam ne moo di Pape Diagne Seras tamit di manaan se nekk ca Pikine wax na ci Abdou Bakhoum mi tamit joxe na ci xalaatam ñu baree bari daal ku ci nekk rek am na tey loo xam ne ni wax nga ko ci bu dee ki nga xam ne ni nag moo di Malick Thiandoum la moom la mu gis daal mooy ki nga xam ne nii mooy Sa Thiès guy gi Yékini Senior wala Modou Anta moom ne na ñii ñëpp ku mu ci mën a doon daal yow ak ki nga xam ne mooy Reug Reug combat te war nga mën a bëre ak moom Pape moom la mu xamle moom nee na Malick Niang moomu Sa ba ci Forza bu Fass moom itam jàpp na ne ñii ñëpp ay adversaire de taille lañ pour kii nga xam ne nii moo di rëg-rëg moom la mu xamle daal lenn la moom nee na day kii di rëg-rëg ñi mu war a mooy Forza bu Fass ak kii nga xam ne moo di Papa Sow moom daal ñooñu la ko gisal ca fii nga xam ne nii mooy ñoo xam ne boog war na bëre ak ñoom mu mel ni nag ñoom ñaar seen combat boobu ba tey jeexagul ndax yëglikaay bi ji sunu làmb ba tey ñëwaat na ci rek ci loo xam ne day gis na ne kera safoon na fa sàpp muy wàllum bagaar boo xam ne day amoon na ci ñaari kaay ci wàllum gàllaaj maanaam xar fa xufa goo xam ne daal kera moom bëri woon na fa ba yegg ci lool sunu làmb xëy tey dinu ko wax waaye ka nga xam ne nag moo bëre ba daanu moom yëglikaay bi ñëw na ci moom ca bés booba muy Gris 2 nee li ko gëna rey day bokk na ci ñàkkum sparring partenaire ak yëngatu boo xam ne daal ñàkk na ko am ak changement de pied maanaam daal soppi ab taxawaay wala tànk ba nga xam ne moom la doon jiital mu sansé ko bokk na ci loo xam ne day rey na ko bu baax a baax ci lii nga xam ne nii moo di combat boobu nga xam ne moom la doon bëree waaye am na leneen loo xam tamit yëglikaay bi ñëw na ci Luc Nicolaï mi tëggoon làmb ji nga xam ne moo amoon samedi yi ñu génn moom am na leneen loo xam ne day mu koy wax wala di ko woote mu muy lan Luc nag ne na ay assises la ñu war a woote ngir lan ne na mbër yi nga xam ne day dañoo def année balance daal Luc Nicolaï daa jàpp ne dañ caa war woote ay assises bokk na ci gir Bordeaux doo Baldé Tapha Tine ak yeneen mbër yi nga xam ne day mel nañu ni ñoom loolu ko laay moo koy wax ba tey ci yëglikaay bi leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi da caa ñëw muy kii nga xam ne nii day moom moo di ki nga xam ne mooy idaali ñing combat boo xam ne moom taxawal na ko muy combat ay xale espoir almaami la taxawal ak kii nga xam ne moo di alburi léegi yëglikaay bi di sunu làmb xëytee wax nu ko xamuñu ne day almaami mi nga xam ne nii mu nga nekk fa nga xam ne mooy Kër Masal mbooloo ak ki nga xam ne nii day moom moo di alburi bi nekk fi nga xam ne nii day mooy écrit saa njàmbur daal seen combat moom taxaw na ka ko tëgg nag moo di ki nga xam ne moo di idaali ñi ngi waaye jamono jooju tamit Sidi Jaxate moom mu ngay woote de combat boo xam ne tëgg na ko fa nga xam ne mooy ca see sunu lam waxal xam xamal ñu ko am di nogoy ki nga xam ne mooy caatu Samba Diaw loolu tamit samedi lay am ca Thiès yëglikaay bi nee day lamb journée bu nar a explosive moom la Sidi Jaxate woote fa nga xam ne mooy ca Thiès samedi ji nga xam ne ca la ñu jëm leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi da caa ñëw muy samedi ji ñu jëm stadium Iba Mar Diop combat bu nar a méttee métti Samba ya fa jaar sam production diggante alin Diop bu Lamsar ak kii nga xam ne moo di njaaxum alin Diop nag la muy xamal njaaxum nee na ko li ma lay xamal daal yow du gudd te du gàtt lenn la dama lay def loo xam ne ndey bu buñ ca yeggee dinaa la duma facilement daan la facilement maanaam daal da koy duma ci lu yomb ci moom lool ba pare nag door koo daan yëglikaay bi di sunu lamb moo xëy tey ñëw di ñu ko wax leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi di caa ñëw muy aw tiis woo xam ne day amoon na fi ci jàppal la 20 juin 2009 tey di 20 juin 2019 muy 10 ans muy accident ba nga xam ne moo amoon ca yoonu ndar wa te ñoom Mama Ba ak ñoom alin Sey numéro 1 faatu woon ca yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw di ñu ko fàttali leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi da caa ñëw muy wàllum lit simple bi mu mel ni ki nag. fi mu nekk nii dey kii di daam seen moom Adrien Senghor mu ngi fay dem waaye daal yëglikaay bi ne na day rate na fa li nga xam ne moo di ñaari final ba tey li simple boobu tamit dañ cay wax rek rawatina ci mbirum drapeau chef de l'état ca Leewtoo point net moom ñu ngi fay jàngate ne dey ki nga xam ne moo di Zambala ñu ko doon tudd ci wàllum jël place ki nga xam ne moo di ki nga xam ne mooy Franc ci équipe de Dakar ba plus de 100 kilos mu mel ni kii nag Leewtoo point net ñu ngi ñuy xam ne day Zambala moom weddi na loola mu set na moom daal demut tey suba waxi noppi tey sax wowuñu ko ci mbir moomu moom na daal li ko ñor lenn la mooy préparation combat bi nga xam ne day moom la war a bëri mois de juillet te mu dox ci digganteem ak ki nga xam ne moom moo di Didier loolu daal mooy ay waxam moom mi nga xam ne nii nag moom moo di sambalaa waaye mu mel ni ki rek jàppal daal yàgg mar tey daal moom loo ci mën a dégg yaa nekkoon ci caméra bi Ousmane ay monte ndax nag Talla Ndiaye tey dafa am foo xam ne fa la xaw a dugg kon tey yàgg mu Seex mu Serigne Saliou moo fel ma tey Babacar. salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nii bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen ci seen ak jàngat bi comme ni ñu koy defee chaque jour ma ànd ak sama sama xarit Babacar Babacar nuyu naa la. Aïssa maa ngi lay fay madame Nia comme ni ñu koy waxee sama rak sama xarit maa lay bëggee di la ziar di la ñaanal jàmm di bi parce que nga amee ni ko soj tey ah <laughs> macha allah mais maa ngi lay bëggee bu baax a baax di nuyu internet yu suivre Leewtoo TV yëpp. waaw Babacar damay jéggaluwaale sax ñi nga xam ne ñooy internet yi parce que baat bi moom mooy loolu soj bee ma xaw a sonal tuuti rek mais ñu jéggalu si loolu ñu dugg si li nga xam ne ni mooy jàngat bi ñëw des ba tey ak ki nga xam ne ni mooy Reug Reug ak coowul adversaire yi nga xam ne ni ñoo koy xaar pour euh, déwén parce que coow li jóg na fi ku nekk tudd na fi ay mbër Ama Baldé Sa Thiès lu ne dégg nañ ko fi mais suñu lamb tey ñëw na jël ay nit ku nekk wax sa xalaat ci li nga xam ne ni mooy potentiel adversaire wu Reug Reug Babacar Malick ay Aymérou Samb ñoom ñëpp dégg nañ la Pape Diagne Seras Abdou Bakhoum ñoom ñëpp wax nañu ah waaw ah, loolu nag mooy làmb parce que coow li bëri na actuellement si Reug Reug ku muy bëreel kii la wala kële ñoom tamit laaj nañ leen boo xoolee nag adversaire yi ñu tudd Forza ngay dégg Malick Niang Papa Sow Yékini Junior Modou Anta effectivement ñooñu ay adversaire potentiel lañ pour Reug Reug Reug actuellement adversaire yooyu ñu ñooñu wax li càndum wax Abdou Baax mu wax ko ki nga xam ne moom mooy Pape Diagne wax ko Pape Diagne Seras loolu defe naa lu leer la te itam lu war a mën a nekk la ay adversaire de taille lañ ci ñooñu ñëpp bu dee Yékini Senior moo moom war naa mën a neex bu dee Modou Anta la wakazalika naka noonu Forza Papa Sow parce que ñooñu dafa dugg seen écrit bëri gi dem fa la jóge loolu yaakaar naa ak Sa Thiès tamit ñu limbaal nañ ko ci biir kon ñooñu actuellement ñooy ay adversaire ki nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg bu dee la kaat Ama Baldé loolu li bu ñu ci dee dellu si Ama Baldé néew ñu mënta bëri ak rëg-rëg mais li ci nekk mooy mbër mi des fois day am leneen loo xam ne nii moo koy gën a wala mu am yenn possibilité ama actuellement dafa am possibilité yu nga xam ne ñi ñu ñu limb amuñu possibilité yooyu ama am na possibilité bu bëri ak Bombardier am na possibilité bu bëri ak Tapha Tine ndax boobu noonu nañ sax taxaw na ba pare na possibilité bu bëri Gris tamit gis nga ñu ngi ko dox te loolu lépp defe naa ay adversaire lañ yoo xam ne nii buñ ko xoolee moom comme ñooñu lañ koy waxal loolu mooy gën a yanu loolu lay gën a soxla que moom muy mu mu muy nangoo bëri rek actuellement parce que comme ne na ak moom mais ñee ñu limb moom wax dëgg yàlla kuñ ci dox sa diggante rek rek pour man bu fekkente ne cadre sport la bu ñu ko ci tegee rek bu la fayee lu ko jar war nga ko mën a jël bëri ak moom daal. dañuy des ba tey comme ni nga ko tuddee kooku di Ama Baldé ren mu daal def euh, li nga xam ne mën nañu ko jàppee première saison blanche am parce que da doon wax ni moom sax du mbër buy def saison blanche parce que gis na public bi muy andi gis na li muy andi ci làmb muy animation muy lépp mais ren dafa bokk si ñi nga xam ne ñi ngi ci touche bi. ba tax na kii di Luc Nicolaï moom ay assises la préconiser maanaam toog waxtaanee li nga xam ne moo dal ci kaw ñoom Gris Bordeaux Tapha Tine Ama Baldé ak yeneen ténor yi nga xam ne ren takkuñu ngemb waaw Ama de loolu waxoon keroog sax maa ngi koy wax ne ko da nga woon doo mbër buy année balance mais daa mel ni na ko et puis loolu am na ah euh, Luc Nicolaï tamit comme loolu mu wax ne dafa def bëgg a def ay assises ngir loolu am ngir année balance yooyu ñu xool lu ko waral loolu tamit defe naa bu mënee nekk te muy bu loo assises yoo xam ne suñu ko defee bu ñu ci jógee mu amal làmb njariñ defe naa loolu dina nekk li nga xam ne lu baax lay doon parce que tamit mbër yu ñoom Ama ay Bombardier ay Gris ay Tapha Tine def année balance ci ci ci ci ci année ba ñoom Gouye Gui ñoom Papa Sow ay boo xoolee mbër yooyu yëpp actuellement ak Siteu mën nga ne ren moom saison ren bi duñ ci bokk parce que saison bi mois de juillet lay tëj loolu nag vraiment du loo nga xam ne tey lu neex amateur yi ndax mbër ah, dañuy dundal làmb tamit te seen i bés ñëpp a koy xaar mais nag xëy na yàlla moo tudd loolu ci ren ñu di leen wax rek que ni bu saison bi tëjee ah kuñ ci démarché tamit bu ñu la fayalu raisonnable nga jël ko parce que tamit mbir nu mu dikk rek ay satu des fois pour mën nga téye ko noonu quoi moo lay mooy moo ëpp solo daal waaw defe naa ne ku def année blanche ren déwén moom bu ñu la contacté di nga jéem a xool nooy oyofalee affaire yi rek ba daal di am combat parce que ñaari année bëri woo moom mun na ñàkk ci li nga xam ne ni mooy ténor Babacar ñu dem ci démb bi ngeen toppaloon internet yu Leewtoo TV muy euh, open press njaaxum tey tamit di tam ki nga xam ne ni mooy Alioune Diop 2 waaw Alioune Diop 2 tey lay def parce que njaaxum dem def na rëbës vraiment ma gis euh, mbër yi mu bokk léegi yëpp ñëwoon nañu ñoom bébé julde booy puy gunge si ko ak ki nga xam ne mooy ma moteur ñu bokk dëkk rëbës mooy loo xam ne tamit lu rafet la waa Rebeuss génn seen asiko tamit taxawu ko muy wane ne kon samedi ñoom ñu fas yéene ñëw supporté ko amoon nag nee na nee na daal moom làmb lu lu mu gën a diis gën a gudd moo ko gën a arrangé parce que nee na moom samedi moom bu soobee yàlla day lijjanti Aline Diop waaw loolu nag li ñuy wax rek ku fóotal mbëtt da ngay roccil bar tey Aline Diop moo ay fële ca Lamsar bu soobee yàlla tamit dinañ ko toppale internautes yi parce que ñun internautes fi tax a toog te làmb lañ leen di jox fi nga xam ne mooy ci biir Leewtoo TV samedi du doon euh, Aline Diop ak euh, Njaaxum Kase fële ca Thiès kii di Sidi Diakhaté itam dafay tëgg làmb muy dox diggante caatu Samba Diaw ak ki nga xam ne ni mooy Amdi Ndoge muy doon tamit affiche boo xam ne affiche espoir la foofu sa Thiès waaw noonu lay demee affiche bu nar a neex la tamit waaw vraiment moom tamit mu ngi dundal làmb ci région boobu nga am ne mooy région di Kayor xale ya fa ne dinañ xel di compétir di bëre di bokk ci làmb parce làmb warul yem Dakar kese kon Sidi Jaxate vraiment ñu ngi koy wax moom tamit journée samedi boobu mu tëgg espoir biir Thiès yàlla na ci jëlee ndam lu rëy rëy barke yonante bi sallallahu wa sallam mu ngi yokk bu baax a baax ci région de Thiès moom waaw moom su euh, kooku di Sidi Diakhaté moom fële ca Thiès gis nañ bu baax euh, li mu fay liggéey ci làmb ci dimbali xale yi bu baax ba duñu ñàkk compétition parce que chaque semaine chaque mois chaque deux mois nga dégg di Diakhaté tëgg na foofu ca Thiès ñu dem ci keneen koo xam ne tamit euh, jeune la ren la dugg si làmb mi daal ñi ngi moom it moo bëgg mois de juillet bi taxawal li nga xam ne ni mooy almaami ak alburi pour le 10 juillet incha allah waaw ñoom de seen tur yi sax daa xaw a buure non boobu combat dina neex waaw di nuyu idaal yi ñi moom tamit nekk jeune ñu yàlla dugg mu dugg ren ci làmb comme promoteur defe boobu kon mooy nekk troisième journée ñu ñaanal mu yegg ci ak jàmm mois de juillet ñooñu mu tëgg tamit di ay xale ah almaa nekk Kër Masal mbooloo di xale bi nga xam tamit waa Kër Masal yi ñu ngi ci ginnaaw am si moom yaakaar nga jël alburi bi nga xam ne mu ngi nekk écrit sa njàmbur nekk xale bu saf xorom moom tamit mën a fecc ci lool ma ciy profité di nuyu magam nen nekk Kewel Info alburi ak euh, almaa mi daal seen ñaari tur rek pour man loolu rek làmb la loolu rek combat la quoi parce que ay turi buur la macha allah. Babacar dañuy daal di jeexal ak li nga xam ne mooy wàccaayu drapeau chef de l'État te équipe bu dakaar lañ ci gën a concentré wu parce que fi mu toll nii coowul 120 kilos bi bëri na diggante franc dina dem du dem diggante Zambala mi ñu fi waxoon day dem remplacé franc Zambala moom nee na yëgul tiinul demul drapeau chef de l'État ba. coow li mi ngi commencé bëri parce que dafa bëgg concentré wu ci li nga xam ne ni moo koy xaar le 31 juillet diggante moom ak waaw loolu ñu muy loo xam ne information bi ñu ngi ko jàngate ci leewtoo point net ah waaw loolu nag comme li ñuy wax rek xam nga équipe de Dakar moom man drapeau solitaire li ma si waxoon rek daf si ama ah, boo xoolee nëbbonte bi am na ci Zambala nag bu dee moom moo wax loolu que ni moom bokkul te contacté wuñ ko parce que combat am lay waaj ah loolu tamit moom mi ko wax di magum yàlla am jëm xëy na am na fu mu ko teg kon li am ba des daal am na combat nag li dafa frappe combat am ak DJ loolu nag bés la ndax DJ itam yaakaar naa du mbër bu neex deret kon ku jël avance am moom il nga jóg waaw kantaan nag bu ñu ko convoqué mun a demul xëy na am na ay raison yu tax mun a demul wala bu fekkee ne na woowuñu ko tamit xëy na loolu xam na lu tax ak lu xew waaye loo ci mënti dégg daal euh, wax bi bëri na actuellement mais nag ci kàttanu suñu borom ah drapeau chef de l'État desatul lu bari kon d'ici quelques jours incha allah rabbi lépp luy leer rek bu ñu demee ci fa nga xam ne mooy mbuur ah ci kàttanu yàlla lépp dina leer incha allah rabbi mais jàpp naa ne daal drapeau bi moom itam dana metti trop trop ndax xëccoo bi ma ci nar a gis dana tar daal xëccoo bi métti na Dakar am na sas parce que jël ko daaw ñu lay xaar ren Babacar sa équipe ñu naan mat naa matul est-ce que du nekk loo xam ne nii nekkul ci yoon boo xam ne dina gënal ñii nekk di di xaar Dakar. waa équipe bi mat bi moom wala mu ñàkk mat moom dama naan bu matulee moom est-ce que loolu yoon la yaakaaruma ko mais pour man mu ñàkk mat bi tamit gëmaguma ko. balaa may gëm ne matul <laughs> ay sa ñu dem ba ci kanam parce que yaakaaruma ne nag dinañ mën a nangu équipe bi di bañ a mat parce que li tax mooy que ni lu ko mot li am na fi macha allah bu dee mbër yi ñu ngi fi ci poids bu catégorie boo soxla waaye tamit ñoom ñi nga xam ne ñooy ñoo yore équipe ba di entraîneurs yi ak les directeurs techniques xam nga ñoom ñoom lu mu ci mën a doon rek ñoom ñoo xam naka lañ koy gérer ak nu ñuy parce que ña fa nekk du ñu ay nit yoo xam ne nit yu xamul làmb parce que Cheikh Ndiaye Ibrahima Mbaye Cheikh Ndiaye ak ñoom Omes yaakaar naa euh, yàgg nañu encadré ay mbër te ñoo équipe bi jox ko trophée boo xam ne mosu koo jël kon defe naa tamit li ñu jëmaat am na daal loo xam ne ni luñ ci xam la kon nag dañ leen di seetaan déglu leen xool ba xam naka la ne di mujj ak bëtam daal waa waaw euh, Babacar ci loolu la ñuy tàggoo nga xam ne ñooy suivre revue de bi di nuyu maam Talla tey Chéri Lébu ñëwagul nekk si ay euh, xat-xat di nuyu yàgg si caméra bi di nuyu ki nga xam ne mooy si montage bi équipe Leewtoo TV ñu leen nuyu di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi bëggee Leewtoo TV di ñu safoo di ñu jàppale à chaque fois Babacar. waaw noonu la demee Aïssa di nuyu Talla tey dafa xëy am fu mu jaar am yu muy toppatoo ñu koy nuyu di ko jaar mais tamit yàgg mi nga xam ne tey moo géré caméra bi di ko nuyu ah yàgg maar taalibi Cheikh Béthio mu sëñ Saliou di nuyu ki nga xam ne mooy Ousmane nekk ci montage bi tamit di nuyu bu baax a baax yow di la encore une fois di la nuyu di la encouragé waat di la ñaanal yàlla soj bi wér mais di wax Moussa ñaane ko tey nag robe bi moom na nga ci def dara quoi koy nuyu bu baax a baax moom Mohamed ah Siré Aïssa di nuyu ñi nga xam ne tamit ñu ngi ñuy yépp mais Leewtoo duñu leen fàtte rawatina ki nga xam mooy Dior di ma maquilleel kanam gi waaye ki nga xam ne nag toom yi ak madame baax a baax di nuyu ñëpp daal hélas bu jënd kayre maa ngi koy nuyu borom Senova Couture Rimka Couture sama doomu ndey Touba Sandaga Cheikh Maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam Couture maa ngi koy nuyu moom tamit ñoo ñëpp di ay tailleur yu nga xam dañuy jàppale Babacar ci solo bi ñoom wax ki nga xam ne mooy Aliou Bouyankaaw nekk marché Thiaroye moom tamit di ci jàpp Zal Faye marché Tilène seen Sène Petersen di nuyu soppe yëpp Khadiros Ndiaye du ma ko fàtte tuuti Yaay Sarr ki nga xam ne mooy Serigne Diour depuis Italie nuyu naa ñëpp ñaanal ñëpp jàmm mais waa Norvège tamit dañ ma woo tey ci suba di ma béggee maa ngi di nuyu bu baax a baax a baax da baax depuis Norvège maa ngi koy nuyu bu baax a baax di balu ñëpp ak Kempes doomu ndeyu yàgg maar maa ngi lay nuyu bu baax a baax depuis Paris. rendez-vous suba incha